waaw euh, El Hadj bii di wax politicien bi politique la ma ñëpp xamee mais dañu fàttali président jaraaf laa woon mhm. euh, lu mat euh, ay atiat ma nekk jaraaf vice président après yeeg président ci yoon ci ci temps boobu noonu man dama amoon benn référence mhm. muy Pape Diouf yàgg naa ko wax mhm. bu ma demee Kaolack sama dëkk ñu ne mais maître yow da waane lu tax doo ñëw jël Saalum ASC Saalum ngay dem di di diriger Jaraaf ma leen yéen nag dëgg-dëgg bu nawet rien compris xanaa gisu leen Pape Diouf Pape Diouf dafa jógee Sénégal dem ba beneen réew jógewul sax kaw la ñëw Dakar dafa tëb Sénégal dem ba France jël Marseille loolu di ndamu Sénégal ndax doomu Sénégal bu demee ba France tekki fa ba jël club bi gënoon mag bi ëpp bi ëpp prestige ëpp ëpp ëpp maanaam France parce que Marseille avant Paris puis PSG Paris mais léegi rek la. waaye Marseille ak saint ñoo doon club yu mag yi bu njëkk France. ndax Marseille kese moo fa jël Ligue des champions. moom kenn rek. Mhm. moo fa jël Ligue des champions. Mhm. ci ci kanamam ci teewaayam ci présidence am kon loolu day wone ni nit mun na jóge Sénégal dem fekk français yi wala allemand yi wala feneen mën leen duma leen jiitu leen wane ay qualité Mm-hmm. ma nekkoon man la kaw la quoi man Saloum Saloum bi bu ma ñëwee Dakar liggéey fi tekk fi macha allah ba mën a jiite Jaraaf le plus grand club du Sénégal mm-hmm. ma ne ah yéen waa Kaolack bu leen ma ci mere seen doom moo dem ci capital ba mm-hmm. bu fa nekkoon benn yambar <laughs> wala benn yaafus duñ jël club bi seen di ma ko jox kon boog man leen Pape Diouf xool leen ci Pape Diouf mooy sama référence waa Dakar it ni ma yow waroo jiite suñu club jaraaf man leen lu tax fekk booba ñu bëri dañ bëgg ma jiite ba jox ma club bi am ñu ni non yow doo Dakar waa man leen xalaat gisu leen Pape ñoom tamit Pape juuf sénégalais la dem ba Marseille jiite Marseille léegi loolu amatul kon man dafa nekkoon sama référence ci sport te ba bëgg sport dund sport Pape Diouf laa gisoon comme référence moo tax tey jii man dama ñàkk ku nekk am nga référence ci mu ci politique mu ci yeneen domaine mais ci domaine sport Pape Diouf wala sama référence ñu bëri ñu bëri bëri dango nañu ma ñu bëri bëri bëri bi may laaj mairie Kaolack ni ma non non non yow jëloo Saloum Saloum waroon ñëw man leen non gis ngeen Pape Diouf yéen gars yi yéen tamit nag ah dem bitim réew tekki fa ba ba tekki fa dara loolu loolu ambassadeur la kon boog Pape Diouf nañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe. allahumma amiin. waaw mérité na ko. lii métti na lool. Euh, feebar bi ñëw di bu bees. yóbbu ko. yàlla ci yàlla musal ñu ci des ñëpp. allahumma amiin. yàlla yàlla aar Sénégal. amiin amiin yàlla yàlla may ñu xoole muñ. ndaxte ñàkk nañ. un des meilleurs fils de ce ambassadeur la. dem bitim réew tekki. nekkal fa Sénégal jërëjëf Pape yàlla suuf sedd sa kaw. jërëjëf yow it maître El Hadj Diouf jërëjëf yow itam maître El Hadj xam naa ne nag suñu dernier interlocuteur la ñuy jël laataa ñoo tëj plateau bi euh, bu fekkee Cheikh Yirim Seck sama naataango mu ngi ci bu mu jokkoo bi Cheikh Yirim Seck ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. waa grand di la massaw yow itam te di la jaale ki nga xamante ne moom lañu ñu bokk mu di Pape jouf allo. waaw dëgg la dama amoon rek benn euh, mhm. euh, témoignage bi may def ginnaaw. Mhm. bi ma jaalee Sénégal. Mhm. jaale askan wi. jaale mbokk yi nga xam ni yëpp tey naqar wi dal na ci seen kaw. dama bëggoon rek. def témoignage bu ndaw. allez allez grand. pour pour xam. Pape Diouf naka la meloon ak Sénégal ak naka la meloon ak sénégalais yi. ay ca yow la ñuy déglu. waaw mille cinq mille cinq bi mu nekkee président Marseille. dafa am benn journaliste su Jeune Afrique bu ko woo. bëgg a def ak moom interview. bi ko journaliste booyee ba wax ak moom. grand bi ni ko. bëgg naa def ak yow loolu interview bi mais xaw ma la seen kër googu nag dafa am ku ma fa xam koo xam ne sama rakk la ku tudd Cheikh Yérim Seck. Mhm. su ma sañoon moom laa koy defal. Mhm. waa ji ñëw sama bureau dama daal Pape Diouf maa ngi dox ci benn interview ak moom depuis longtemps. Mhm. mais tey dafa am lu mu wax daf ni ma daal. comme yaay rakkam fii yaay compatriote am yow la ko bëgg a defal il fal fallu ma woo ko man grand bi ni ko grand man duma ma journaliste kii di la topp nii mooy de sports ci Jeune Afrique mun ma ah comme wax nga ma ko rek dinaa ko def moom mais du ma bàyyi sama rakk di def ak keneen. lu tax ma def témoignage ba pour wan Pape Diouf fan la tegoon Sénégalais yi fan la tegoon Sénégal man il est arrivé plusieurs fois mënu ma ko compter. Mhm. ma wax dara par exemple ci média di dëkk tubaab yi. Mhm. Pape Diouf woo ma na ma booy lii baax na lii baaxul. Mhm. loolu rek moo tax parce que yàlla def na bi feebar bi commencé ba léegi mosuma cee wax mais lii jàpp naa ni lu ma war a témoigner la pour nit ñi xam ni Pape Diouf dafa bëggoon sénégalais yi bëgg bu wér amul fu sénégalais nekkoon te grand bi du la nemmeeku du la wax li mu xalaat amul interview bu mu mës a def ci média bu mag ci dëkk tubaab yi te grand bi même bu ko ratee seetaanu ko li ci baax mu ni ma lii baax na li ci baaxul mu ni ma lii baaxul loolu lu am solo la maanaam ku bëggoon Sénégal la. Mhm. ku bëggoon sénégalais yi la. Mhm. jàpp naa ni grand bi heure bu amoon temps libre Sénégal la koy passé parce que mhm. am na lu bari lu ma ci xam. donc tey Sénégal perte na nit ku mag a mag a mag. Sénégal perte na nit ku bëggoon Sénégal. nit ku bëggoon sénégalais te bëgg boobu du bëggu ngistal maanaam bëggu ci suuf la da ngay nekk sénégalais nekk sa carrière. grand bi di la jàppale di la conseiller. di la jox ay xalaat yu wér. Mhm. loolu vraiment bëggoon naa ko témoigner bu témoignage bay passé nag am na lu ma ci bëgg a dolli. Mhm. parce que faatu Pape Diouf bi mhm. dafa war a am lu mu jàngal sénégalais yi. li mu war a njëkk a jàngal sénégalais yi surtout ñuy wax ci réseaux sociaux yi te xamuñu dara ci ñuy wax. li leen war a njëkk jàngal mooy. coronavirus bii du caaxaan. c'est très important. man dama jàpp ni perte nit ku mel nii. Mhm. mu doon ki njëkk faatu ci coronavirus biir Sénégal. Mhm. lu ñu yàlla defal la pour ñu jël ci ay jàngat. parce que Pape Diouf tey bu doon relation du dem. bu doon ay pexe du dem. Mhm. bu doon connexion du dem. li tax yàlla yóbbu ko pour man jàngaleel jàngale bi ñu ci war a jàngal mooy feebar bi du kaf du ree. du caaxaan. te mën na dal ci ku ne. am am na solo grand am na solo. loolu lan lañ ci waree lan lañ ci war a tirer comme leçon d'abord. réew mi. wax ji dafa bari lool ci feebar bi te jëf yi néew. sëñ bi feebar bi il faut ñu regle ko. léegi nag feebar bi nen rek lañ ko mën a régler. xaalis bii ñu wax ni moom lañ dajal. nañ ko jël. jox ko nit ñi nga xam ne dañ koo soxla. ñu jënd ci ay lekk. def ko seeni kër. ñu confiner réew mi. jërëjëf jërëjëf amul benn réew boo xam ne ma rek. benn jërëjëf jërëjëf grand temps bi moo xaw a jeex rek dimbale ñu rek benn benn benn foog foog ñu jël benn suñu dernier intervenant balaa ñoo mën a tëj. kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na mu nekkoon suñu naataango Cheikh Yirim Seck wax na lu am solo. wax na lu am solo ci témoignage ak aussi misaal bi nga xamante ne moom lañ ci war a jàngee. Mhm. mu jëm ci wàllu jàngoro ji beneen intervenant bi mujj muy Fatma samura moom la ñuy jël bu FIFA euh, bu fekkee mu ngi ci buumu jokkoo bi Fatma Samoura. waaw. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi lay ñu ngi massawu yow it te di la jaale ki nga xamante ne moom lañu bokk muy Pape Diouf tey sa kàddu lan lay doon ci ki nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo loo ñu mën a wax si moom. Mm, li ma mën a wax mooy euh, Pape Diouf ak man dégg ñun ñaar ñëpp ay Diouféen dañu jotuñu mm-hmm. ñu daje. Mm-hmm. waaye li ma xam ci moom mooy que ku bëggoon dëkkam la te ku amoon xam-xam la tamit ci mbirum journalisme ak ci mbirum euh, football. Mhm. sama kilifa bi nga xamante ni mooy kilifa football bi Gianni Infantino. Mhm. bi nga xamante ni xaritam la woon bi ma ko woowee yónnee ko message. Mhm. daf ma tontu ne ma je suis sans voix. munu munuma wax ndaxte dama am naqar. kon nag euh, motu football bi yëpp moo am naqar. maa ngi jaale waa Sénégal waaye tamit maa ngi jaale bépp joueur boo xamante ni jot nga xamante ne moom wala euh, tamit euh, jot nga euh, jokkoog moom ci ay business wala ci football bi. maa ngi jaale Thierno Seydi maa ngi jaale Didier Drogba maa ngi jaale Marcel Desailly maa ngi jaale Alassane Ndour maa ngi jaale élage Hadj ñoom ñëpp am nañ lu leen naqari ci dëgg-dëgg man am naa lu ñaan daal. Sénégal euh, euh, jox ko hommage bi nga xamante ni moom la mérité hommage bi nga xamante ni foofu la bëgg-bëggam toll woon ci Sénégal na ko ko waa Sénégal rendre même si conditions yi ak quarantaine bi coronavirus bi permettre ñu ñu def ko un deuil national mais mérité na ko en tout cas ci wàllu FIFA moom. li woor ba wóor moom dinañ ko rendre un hommage et un hommage mondial. voilà ça c'était mon sentiment te maa mhm. en français madame euh, Samoura. Aujourd'hui, avec la disparition de Pape Diouf, c'est une perte immense pour le monde sportif et pour le Sénégal également. que pouvez nous dire sur l'homme? Euh, je dirais que c'est une icône du football euh, qui vient de nous quitter. Mhm. Au moment où on s'y attendait le moins. Tout le monde connaît l'amour de Pape pour le football, mais aussi son amour pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mhm. Il a porté haut euh, les couleurs euh, du football mondial. Mhm. Et aujourd'hui, tous ceux qui aiment le football ont une énorme perte. Mhm. Donc, euh, tout ce que je peux dire, c'est que le monde du football sénégalais et le monde du football en général a beaucoup de regrets face à ces pertes. Et je voudrais profiter de l'occasion pour présenter au nom du président de la FIFA euh, les condoléances, les condoléances les plus sincères au peuple sénégalais. Justement, le président de la FIFA. Le président Infantino a eu beaucoup de mal à, accepter euh, ce départ. Mhm. Lorsque euh, je lui ai, appris euh, la douloureuse nouvelle, tout ce qu'il m'a dit, c'est Fatma, je suis sans voix. Quelle mhm. tristesse. Et donc, c'est une tristesse que nous partageons tous. en tant que Sénégalais, mais en tant qu'aussi euh, leader du football mondial. Mhm. Euh, je voudrais euh, juste prier pour que son âme repose en paix et que les portes du paradis lui soient ouvertes. Merci beaucoup madame Fatouma Samoura secrétaire générale de la FIFA Pape Abdoulaye mu mel ne nag moom moo ne woon ku mujj ki ñuy jël ci bu mu jokkoo bi di la jaajëfal yow itam euh, ci sa teewaay ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko fii di la. jaale tamit kii di Pape Diouf di ko jaale Sénégal gi yëpp di ko jaale itam euh, adduna bi rawatina njabootam kon mbokke xarit yi fii la ñuy